waaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yu Yoff TV mbokki Yoff ñu ngi nii fay tey jii ci fi nga xamante ni mooy place bi nga xamante ni fi la sang bu tedd bi tëdd di Seydina Limaamu Laay tey jii ñu ñëw ngir fekke julli gi nga xamante ni dëgg yàlla mooy ñaari raaka yi nga xamante ni ginnaaw war nañu fanweeri fan yi nga xamante ni moom la ñu borom bi subhanahu wa taala digal ñu war a ñëw nag def ñaari raaka yi nga xamante ni raaka yi sunna mu akkadal di sunna bu ñu feddali dëgg yàlla ñu ñëw fii tey ngir àndandoog suñu waa kër maam Seydina Limaamu ngir julli ñaari rakka yooyu ci njiital wax dëgg yàlla xalifa bu tedd bi Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na yàlla yokk dëgërëm yàlla gën ko taxaw ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba li mu yéene njabootu maam Seydina Limaamu gi yëpp mu mottali ko ak ay rakkam yu tedd ci ginnaawam porte-parole am Seydina Mouhamadul Al Amin Laay bu maam Babacar ànd ko ak ay rakkam ñoom maam Diin ak euh, imam Makhtar ak njabootu Seydina Limaamu gépp ñu fas yéene fii wax dëgg yàlla julli ñaari rakka yooyu nga xam te ne sunna mu akkadal di sunna bu ñu feddali tey ji ñu ngi ni gis nga njaboot gi jugee nañ fu nekk à travers le Sénégal ñëw ngir fekk si li nga xam te ne mooy julli ñaari rakka yi xam naa dañuy ànd ak yéen ci biir rek ñu dem fekk la nga xamante ne moo xew ci biir julli gi incha allah dara du leen ci rëcc bu soobee fi ñuy tàmbalee ba fi ñuy xutba ba fi ñuy ñaan incha allah seen tele bii di Yoff TV dina leen jëlee lépp incha allah tey ji ñu àndandoo ñëpp rek ñu dugg ci biir ñu dem xooli lan moo xew ci biir barab bi

Hola. la ilaha illallah la ilaha illallah Fly la ilaha illallah la ilaha illallah la la la la رسول الله la la la Lion. Right. la la la la ilaha illallah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 لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمن إمام الله إلى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى أهليكم موجبه واشعركم بأني أسلم عليكم وأسأل عن حالكم خيركم وعافيتكم ودياركم وأوصيكم بالاجتهاد في طاعة الله ورسوله وتأكيد إيمانكم وتعامل الخير وتحابوا إن الدين النصيحة أما النصيحة فهي أن تنصح لله ورسوله وكتابه ولأئمة الدين ولعامة المسلمين والنصيحة لله أن توحده وتعمل بما أمر وتترك عمانها وتأمر الناس بذلك والنصيحة لرسوله أن تؤمن به وتصدقه وتتبعه فيما أمر وتترك عمانها عنه وتعمل على سنته والنصيحة لكتابه أن تقرأه وتتلوه وتعمل بما فيه والنصيحة لأئمة الدين أن تحبهم وتتبعهم وأن تعينهم على أمر الدين وتأمر الناس بذلك النصيحة لعامة المسلمين أن تحبهم جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب المؤمنين ولا يبغض أحدا منهم وكما قال صلى الله عليه وسلم حقيقة المؤمن أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا وتآمروا بالخير وتناهوا عن الشر وأصلحوا بينكم بالمعروف وأوصيكم أن تجعلوا بينكم المحبة فإن أهل الجنة يتحابون ولا تجعلوا بينكم العداوة والبغضاء أنتم كنتم إخوانا اعلموا أن المؤمن أخوه المؤمن كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اعلموا أن المؤمن اعلموا أيها المؤمنون أن المؤمن ألف مألوف ومن لا يألف الناس ولا يألف الناس عليه لا ينزل نصر الله عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول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 xéewal ak mucc yàlla na dotteeku ci moom ak ñoñam ak saabaam ya mboole seen ginnaaw loolu tukkee na ci ilimaan yi yàlla ji jëm ci mbooleem ay taalubeem ak jullit ñi góor ña ak jigéen ña mag ña ak ndaw ña seydina limaam alayhi salaatu wasalaam neen assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ala ahlikum mucc yàlla na dotteeku ci yéen ak yërmandey yàlla ak barkeem ya ak wàcce seen ñoon yi ne li waral xutba yi mooy xanaa di leen yëgal ne ma de maa ngi leen di nuyu di laaj seeni mbir seen yiw seen jàmm seeni kër di leen dénk ngeen farlu ci topp yàlla ak ab yonentaam te ngeen feddali seen ngëm di jëflante aw yiw ngeen soppante naka diine day laay biir la ne ne laay biir nag mooy nga laay biir ñeel yàlla ak ab yonentaam ak téeréem ba ak kilifay diine yi ak mbooleem jullit ñi ne laay biir ñeel yàlla mooy nga wéetal ko jëfe la mu digle bàyyi la mu tere nee ne nga digal nit ñi ca loola ne laay biir ñeel yonentaam ba mooy nga gëm ka dëggal ka topp ka ca la mu la digal bàyyi la mu la tere te nga jëfe ay sunnaam laay biir ñeel téeréem ba mooy nga di ko jàng ak di ko durus tey jëfe la ca téere ba laay biir ñeel kilifa yi diine yi mooy nga soppaleen toppaleen jàppale leen ca seen biri diine nga digal nit ñi ca loola laay biir ñeel mbooleem jullit ñi mooy nga soppaleen mboole seen kem ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe nee na jullit daal day soppa jullit ñi du bañ kenn ci ñoom kem ni mu ko waxe waat moom sallallahu alayhi wa sallam nee ne dëgg-dëgg jullit day bëggal mbokkum jullitam li mu bëggal boppam yonneen sallallahu alayhi wa wax na ne nee ni daal bu leen bañante ngeen di digleente aw yiw tey tereente jëf ju ñaaw te ngeen yéwénal seen diggante ci njëkk nee ne moom seydinaa Limaal Mahdi alayhi salaatu wa salaam mooy wax de mu ngi leen di dénk ngeen tëmbët cofeel ci seen biir seen diggante na ngeen si doxale cofeel nee ne nag waa àjjana dañuy soppante nee bu leen doxale seen diggante ak nooneel ak ak mbañeel yéen dey xam leen ne ay mbokk ngeen dana ngeen xam ne nag ab julli dey julli mbokkam comme ni nga xamee ne moom la ko suñu boroom subhaanahu wa taala waxee ci téeréem bu tedd ba mu ne nag jullit ñi dey ay bokk lañ nee na ngeen yéwénal diggante bokk gi te ngeen ragal yàlla ndaxte ëllëg mu yaram leen Seydina Limaamu alayhi wax na ne na ngeen xam yéen jullit ñi neeb jullit daal aji tàpp la jëm ci nit ñi nit ñeet tàpp jëm ci moom ku dul tàpp jëm ci nit ñi nit ñi ñu tàpp jëm ci yow nee ne yàlla ak ndimbalam du wàcc ci yow lii mbokki jullit ñi ab tënk la bu gaaw ci li nga xam ne moo di dénkaane sanga bi seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wassalaam mi yàlla yónni démb ak tey ci nun mu waxaat ak nun baat yu sell yooyu nga xamee ne saasu ne nu ngi koy yeesalaat ci kanamu jullit ñi ngir matale gu mu matale kon nag loolu mooy kàddu ci gàttal mu des nag li nga xamee ne moom moom lañu daan tofal ci xutbaam yi sell yi ginnaaw buñ ko tënkee nga xam ne lépp luñ fi wax tënk na ko ci biir xutbaam yu sell yi mu di rek ay dénkaane yoo xam ne mu ngi jëm ci man ak jullit ñépp nañu xam ne mbokki jullit yi àddina ak lu fi mën a ne asamaan ak suuf ak li ci diggante bi loo fi man di gis ak loo mënul a gis lépp suñu boroom moo ko fi indi yàlla bind lépp subhaanahu wa taala ci loxol boppam ci la lépp moom suñu boroom subhaanahu wa taala moo bind bindeef yi amu ca bokkaale mooy tëral li daw ci biir mbindeef yi amu ca bokkaale lu am yàlla la subhaanahu wa taala lu am suñu boroom la loolu ku ne war na koo fas ndax dégg ngeen sanga bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ci biir wax na ne ah laay bir ñeel yàlla day mooy nga wéetal ka wéetal yàlla nag li tax sanga bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam boyal wax ji tënku ko ci dara maanaam wéetal ka si lii wala la de déedéet da koy wéetal ci lépp yàlla du la nangul mukk nga wéetal ka ci lii di ka bokkaale ci leneen da nga koy wéetal ci lépp mbaa nga seet noo def kon nag sunu boroom nu ngi koy delloowaat sunu bopp di sukk ci kanamam di ko màggal di tuub sunuy bakkaar ak sunuy rëcca ci kanamam ngir ga mu yërëm tey ci àddina yërëm nu it àllaaxira bokki jullit yi lu am yàlla la lu am suñu boroom la subhaanahu wa taala ku ne xam na ne jamono fi mu toll la sanga bi waxoon alayhi salaatu wasalaam yëngu na jaxasoo na te loola day màndargaal ne mu ngi ci yoonu jéex mu ngi ci yoonu jeex bon yi bari na yàq ci kaw suuf bari na balaa yi mu ngi wàcc waaye foog nu xam ne àddina sunu boroom andiw nu fi ngir caaxaan sunu boroom andiw nu fi ngir fox sunu boroom def nu andi ngir nu jaamu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun binduma jinne ak nit dara ngir ñu jaamu kon leneen lu ñu fi def lu dul loolu ñu ngi font kon mbir yi dañu koy delloo yàlla yàlla mi nu fi andi bind dund bind dee moom moo nu nattu xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur moo bind dund moo bind dee ngir nattu leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf kan ci ñun moo gën a rafet jëf tey kon nattu ci tërali ni yàlla subhaanahu wa taala la ba mu dalee bind ba tey mu ngi nattu jaam ñi naka jekk natt yooyu nag suñu boroom subhaanahu wa taala da ko séddale ñaar natt yoo xam ne yu neex la ak natt yoo xam ne yu naqari la natt bu ci nekk itam suñu boroom moom ci boppam moo ko wàcceel boppam amul keneen ku si loxoom ne lu dul ne ci kanam tuuti dinañ ko xam am na natt yoo xam ne sunu loxo moo ko indi yàlla fekk si ñu ci loolu موخنة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نينا بكن بني دينا مس دي واي دينا لين نتو تي سفان دينا لين نتو تيو غير سيت لين مودال دي وخات موم سيني بروم ولا نبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون نين ويرنين دلا ندنا لين ناتو سي لين سي ام تيت اكاك راغال دينا لين ناتو سي لين سي خيف اه دينا لين ناتو ci mànkek meññet yi seen meññet yi di dal dem ndànk-ndànk waaw dinaa leen nattu ci bakken yuy dem nee ne nag nattu yooyu bu ñëwee kasey jariñu kama cey bégale mooy aji muñ jë ñi muñ ñooy ñan mooy ñi nga xam ne bu musiba wàccee ci ñoom ñu teg sa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu de yàllaanu nu moom te ci moom la ñuy dellu delloo ñu mbir yëpp ci moom subhaanahu wa taala kon loolu suñu baroom ba ñooña dig leen mu ne ulaayika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma ñooñu day wér na ne yàlla suñu borom dina wàccee ci ñoom xéewal ak yërmande wa ulaayika ñooñu day humul muhtadun ñoom ci seen bopp ñooy wéy gindeeku ya kon loolu jar naka muñ am na solo lool ca suñu borom kon nanu sàlloo di muñ te xam ne lu am yàlla la subhaanahu wa taala mooy def yu mel nii kon balaa bu wàcc ci kaw suuf jullit bu nekk war naa fas ne suñu boroom moo ko fi wàcce loxol keneen nekku ci bi maanaa aha fa ñuy dogale mbir ya mbindeef nekku fa woon suñu boroom dogal na mbir yi te bindagul mbindeef yi suñu boroom dogal na mbir yi te bindagul mbindeef yi ginnaaw bi mu dogalee mbir yi ci lay door a bind mbindeef yi kon dogal bi moo ñu jiitu alima kulla cheyin qabla kawni fa ala qadari laa yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadaahu wa sabaqa ilmuhu bihi ala yaalamu man xalaq wa huwa latifu lxabir borom risaala wax na ca ba de suñu borom xam lépp jëkk loolu di am xam na lépp ne léppit lu ñëw day daw ci kaw ay dogalam dogal yàlla du moy mukk lu ñëw rek ci kaw ay dogalam lépp lu jóge ci ñun jaami yàlla yi mo xam wax la mo xam jëf la yàlla xam naka lu jitu mu ñuy bind bind naka ci lawhil mahfuz ma faratna fil kitab min shay neene allu be ju mag je day bayiwuma fa dara kon nak nanu xamne itam lu am ci dogali yàlla la amé buñu ñu ut keneen kuñ ci tudd nanu ko delloo sunu borom subhanahu wa taala tay yedd sunu bop kon suñu borom neene ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha in dhalika ala allah yasir likay la tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum bafu wax jeje lépp lu wàcc ci kaw suuf ci musiba mo xam ci suuf si la ci xeeti bekor ak yu mel noonu moo xam yéen ci seeni jëmma la ci xeeti feebar yi leen di dal ak tolof tolof yi leen di dal suñu boroom nee ne bindoon naa ko ci lawxil mahfuus lu jiitu ma di leen bind yéen loola dogaloon naa ko ci lawxil mahfuus lu jiitu ma di leen bind yéen loola lu yëmbala ci suñu boroom ngir ga lépp loo xam ne raw nanu du ñu toog di ko gelu ak di ko misère te itam luñ ca gañe duñu toog di ko puukariw ba fu wax jëjee kon nag maa asaaba min musibatin illa bi iznillah amul benn musiba buy xew lu dul ne yàlla la soob yàlla la soob subhaanahu wa taala ndax nun loolu xam nanu ka tey jii amul solo lool lool lool ñu lay wax leneen ci balaa bii fi toll mbokki jullit ñi lu dul delloo la ci yàlla ku la dewul ci yàlla rek daanaka ginnaaw wax la ni nga war a moytoo loolu deful li ko war li nu war ñun ñépp mooy ñu dellu suñu borom nee na nag wa maa asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum mu ne wa yaafu an kathir maa ngi leen di yëgal ne liyeen dey lépp lu leen dal ci ay musiba mu ngi sababoo ci li nga xamee ne seen loxo yi ñoo ko faggu ci ay bàkkaar ak am yàq mu ngi jóge ci yéen seeni bàkkaar ak yàq mi ngeen di yàq ci kaw suuf si ci la sababoo bu dul woon loolu yenn musiba yi du wàcc seen kaw moo tax mu ne zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bi ma kasabat aydi nnaas li yuziqahum bi ma amalu laallahum yarjiun nee ne yàq ak ñàkk barke feeñ na ci géej gi ak jéeri gi nee ne mu ngi sababoo ci li doom aadama yi jëf ci seen loxo ci ci ay bàkkaar nee ngir mu mosal leen dara ci li ngeen doon def daxtale ngeen dellu ginnaaw man ak sama moroom nun ñëpp sunu loxo ngi ci lii man miy wax ak sama moroom a ci amul kenn koo xamee ne balaa yi wàcc ci kaw suuf tey surtout bii ñu toll nii muy mbas mu réy mii nga xam ne wër na àddina ñëpp ku yabu ne sa bos mu ngi ci ku yabu tuumaal sa boppa te bañ a wiire mbir yi feneen àndaak nga xam ne nag لب تسونو بروم لجوجي وخنا كليجي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من مصيبة منول تخو واتي تكاو سفلو دول نتين دي غلال يالا من ديف منول أم فخي يمك أندي ما مك في جلي كان منو كفي جلي يالا كفي جلي وخ جي بارينا جي ما فينيال أي مرتبة بارينا نيو نيو نيب أي من ديف دون غلين نيو نيب أي من ديف لين وا نيو نيو نيب أي من ديف لين كون وخ جي بارينا لاي مختار loolu lépp lamuy firndel moy nun dunu nu mbiri suñu borom subhanahu wa taala warna no noo mbiri suñu borom motax suñu borom fàttelenu ne na ngeen xamne musiba mi wàcc ci yéen seen loxo yi moko sabab mune nak wayafu an kathir wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum mune wayafu an kathir xolal suñu yermade borom nee ne musiba mu leen mën a dal mu ngi sababoo ci li nga xam ne seen loxo yi ñoo ko fàggu nee ne nag man day dinaa jéggale lu bari maanaam musiba mi fa mu waroon a àgg yàlla da si dindi lu baree baree bare xoolal fi ñu fi mu li mu def ci àddina tey waaye sama boroom nee ne jéggale naa ci lu bari moo tax mu wax si téeréem bu tedd ba ne walaw yu aaxizu llahu naasa bi maa kasabu ما ترك على ظهرها من دابة نيني اه اي بو ما توبون نيت ني تي ني ديف نيني كون نغير ني فيكول كين دوخ تي كاو سوف نيني امول كين كوي دوك تي كاو سوف سي دوما في باي كين كون لولو نانيو كو خام يالا مبير مي اغا ريك لامو تي باي مو غنا باري صلى الله عليه وسلم دا فا في حديث ابي موسى الاشعري donte xadis ba am na luñ cey wax waaye xadis la boo xam ne dëppoo na ak aaya bi laa yusiibu abdan nakbatun fama fawqaha aw duunaha laa yusiibu abdan nakbatun fama fawqaha aw duunaha illa bi zanb wa ma yafu llahu anhu akthar wa qaraa sala allahu alayhi wa sallam wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ويعفو عن كثير نيونا تي حديث ابي موسى الاشعري دون تابنا لو نتي واخ مون سانغابو تدبا صلى الله عليه وسلم ديمبا اك تاي مو واخ تي حديث ني نيني امول دارا لو خامي ني دا نا دال جامبي موي اي مالور اك اي جافي جافي اك اي استرس اك اي بروبليم يودول جيخ نيني لودول ني mu ngi tukkee ci si ay bàkkaar bàkkaar moo koy indi am na xeeti musiba yoo xam ne bàkkaar moo koy wàccee du ay liggéey ay làmmañ ay cat loola am na waaye lu gën a bari ci lu ñuy dal ñu di la gëm loolu ci ay bàkkaar yu àndak yow la kon nag nee ne lu ci dal jaam bi rek bàkkaar moo ko indi mu ne nag li ci yàlla di jéggale moo gën a bari li ci yàlla di jéggale moo gën a bari ci la jànge aaya boobu wa ma asaabakum min musibatin fa kasabat aydikum wa yaafu an kasir la jàngaat mu ne ay gaañi lépp lu leen dal ci musiba mu ngi sababoo ci li nga xam ne seen loxo yi faggu nañ ko ci xeeti bàkkaar ak yàqasu fa suñu boroom la mu cay jéggale nag moo gën a bari wax nañ leen ko léegi kon na ku ne tuumaal sa bopp na ku ne bàyyi xel sa bopp tuub jëm ci sa boroom te xam ne lii am du kenn ku dul ñun bu dul woon sunuy bàkkaar lii du am lay tegtale na nag sunuy bàkkaar mooy indi mbas mi mooy waxam ju tedd ja sallallahu alayhi wa si juróomi mbir yum doon arto saaba yi ak jullit ñi ne a ñaanuma yàlla day loolu ngeen euh, ngeen fekk ko nee ne dinaa leen ci xamal juróomi mbir waaye benn balaay tudd ndax waxtu wee tax من لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا كرن خمن بكاري أمنا نان واو بلين تتدى أي بكار واو بلين كي يبوتي والو ديني ديگ لول سيطان موي دف لول بس بوتي جنة يالا اغال نيو مصيبة مي دانتي پرت نياريون للاي دال دال نالا بنوبي amo ci yalla wala sax bakar mo la ci fek nan la ñuy yalla ci mbiri naka yalla man na te adina bi ak alakhirah ak fi yeb di wëndeel guddi ak bëccëg ak la fay xew nga ne duñ ko ka delo kon lañ koy delo kan lañu koy delloo bareen tubaab yu ñuul li ak ñi melni ni wax yu doye di yoy ñoy koy wax waye li war tay kuy khutba ka wax na nga wax julit ñi li xew xewna ni mu dale weddi katab yalla bi nonu la dale julit bi léegi nag ki si mën a gañe mooy jullit bi buy sàgganee ba yem ak keneen ah moo xam nun dey ay jullit lañu incha allah ta du incha allah ku eh, maanaam nattable waaye barkeeloo ka ay jullit lañ te dañuy ñaan yàlla mbir mu ñëw ñu delloo ko suñu borom subhaanahu wa taala yàlla amee mbir yi kenn mënu fee yëngal lu tolloog peppu atom te soobul suma borom buñ fi sagal ay sëriñ yu ma xamul ma ñu ñu dara. ab manul malaka manul kenen manul ku yabu bance bakar yàlla mo amé mbir yi liñu dal mo nu ko tek ta nun ñoka sabab lu ci sunu doyadi ak sunum yàq ci kaw suuf ak sunu bakar buñu ut lenen lu nuy wax ludul tu sa nga bu tedda ba na ngeen xamne lam tazhari alfaxishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha iikumu taaw nee ne du ngeen gis mukk ak caay-caay ak xeeti moy yàlla yi ci xeeti njaaloo góor jigéen ak yu mel ni ñoom bokkaale waxaalew ma ka mu ne du ngeen ka gis muy feeñ ci nit mukk mukk mukk mukk lu dul ne suma boroom jalla dina tasaare ci seen biir mbas xanaa leer na kon sunuy bàkkaare ka nga لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا نيني caay caay غوغو موي يالا du feeñ mukk ci ay nit mukk mukk mukk ñu dem ba di ko fésal nag télé yaag réseaux sociaux yaag fu nekk bal di ci oo nit ñi nag te bakkaar benn baaxul waaye bi gën a bon mooy bi ñuy fessel Lolo tax bakkar buñu fessel ak tubam dañ koy ya wala yalla du ko nangu bo defé ay njaaxum ci kanamu dom adamay ñepp gis ka ba nga wax ka ñepp di ko mano du geuseb neeg di tub yalla di la ko nangul da ngay dem fa nga togon wax ka ndax da nga réeral nit ñi ba nopi yalla du wor boy wor sa boppe mom yalla mom du wor bul wor dom adamay la nga waxon fa tojaange ya demal fa nga togon nga wax ka kon nak sallallahu alaihi wasallam moñu leralal ne ndekete mbaskat mbas sax la ci tan mom la tudde ci aw turam neena li gëna gaaw indi bakkar bu ñu naa mbas na ngeen xamne seen bakkar yoy la mom la tudde li ci dess mu ne wal awjaa allati lam takun madat fi aslafikum fi aslafihim lazina madaw neena ak metit yi nga xamee ne amul won mukk ci mak ñi leen jiitu woon xeeti njàmbat yeeg metit yeeg xéti febar yenn yi même bu doon amit nii muy ame ci ñun melu ko woon moo nag kuy la naan bu leen si tuddee affaire yu yàlla ak affaire diine kooku sànku na sanku na jar naa wallahi fi ñu toll nii dañu aajoo dellu ci suñu borom te xam ne nag yi ñuy def ñun bàkkaar bari na doon nañ ko xaar ci ñi gëmul yàlla waaye tey ñun jullit ñi rawatina itam sunu réew mi li nu fiy gis par bés ci xeet yooyu ak xeeti fësal bàkkaar ak ñaawteef ak di ci oo doom aadama yi ak di ko rafetal ak ñu jiite bàkkaar yooyu nga teg leen ci kanamu nit ñu baax ñi seetal loolu loolu mooy indi mbasam suñu borom leneen andiw ko leneen lu la waay wax dalay lor billaahi leneen lu la waay wax dalay lor lu dul dellul ci suñu borom lii yàlla la subhaanahu wa taala kenn andiw ko fi ku dul suñu borom kenn sababu ko ku dul ñun ñu ne waruñ cee tudd affaire yi mbugal ah déglul sab yonent sallallahu alayhi wa sallam di suñu yonent ñun ñëpp démb ak tey soxnaam su tedd suñu aïchatu radiyallahu anha dafa wax ci xadis bu wér ndax mbas doon na jaaxal nit ñi lan la parce que am na ñu baax ñu nekk ci kaw suuf di sellal di jaamu yàlla am na ñu bon ñu nekk ci kaw suuf mbas lan la sa'altu رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء ويدقلل من وأن الله جعل رحمة للمؤمنين فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كتب له مثل أجر الشهيد aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam nee ne soxna Aïcha dafa wax ne man de maa laaj yonente bi ku kay werente ci yéen mbas lu mu doon ñi la naan du mbëgal ak nangam laaj naa yonen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma xabaare annahu naka mbas azabun mbugal la yoo xam ne yab'asuhu llaahu ala man yasha yàllaa kay yobal ci ku ka kon loolu leer na ku la doon wax naan bu leen ci dugal waxi mbugal loolu leer na yàllaa kay yobal ci ku ka soob kon nañu fas loolu jullit day delloo mbir yi yàlla déglu bu yonentaam ginnaaw bi mu dégloo yàlla subhaanahu wa taala nee la beneen riwaaya sax nee yàlla daf ko mbugale woon ab kuréel ci bani israël wala boog ñi leen jiitu woon waaye nee na daal mbugal la moo xamee ne ci riwaaya bi yàllaa ko yobal ci ku ka soob waaye li jullit bi mën a yàlla ubbi buntam ndàmpaay ak yërmande pour fay si jullit bi lay dal yéefar bi mooy dal jullit bi mitit yooya doon mbugal ci yéefar bi doon yërmande ci jullit bi mu wa anna dégg nga jaalahu rahmatan lil muminin mu ne waaye yàlla daka def muy yërmande deel jullit bi xam nga liy dal ci réewi yéefar yi ak naa naafeq yi loolu mooy dal ci réewi jullit ñi li leen di gaañ moo ñu gaañ ba léeg-léeg ñu gën cee mittile seytaane da ciy profito di la gëmloo ne mbir yi bu fekkoon ne mbugal la mu jóge ci yàlla nangam ak nangam kon du dal ñu sellal ñi yoneen rectifier loolu ne mbugal la ci nii yërmande la ci ñii bala bu wàcc musiba mu wàcc bu dee ñi gëm nattu lay doon ci ñoom bu dee ñi gëm nattu lay doon ci ñoom yàlla yokk ci seenu yiw sippil leen ci ay bàkkaar yéegi leen ci ay daraja bu dee ñi gëmul ak ñi yàq ci kaw suuf si mbugal lay doon ci ñoom ndaxte lee ñu dellu ginnaaw wala nuziqannahum min al azabil adna duna al azabil akbari laallahum yarjiun dinaa leen mosal ci mbugal mu oyof mi bàyyi mu diis mi mu mag mi waaw ndax ñu dellu ginnaaw kon mbokki jullit ñi lii la sanga bi sallallahu alayhi wa sallam atte foofu waaye ñun comme loolu la wax ñun dañu war a wax fi mu nekk jullit bi lan na nga fexe ba mbas mii li ci yàqule ci zaayir na nga fexe ba gañe ka ci geneen wàll gi mu yool bala ci yàlla di fay léegi nag nan ngay def ba gañe loolu moo waroon a doon waxtaanu ku ne te bàyyi détail yu bari kuy wax ci diine waxal lii nan la jullit ñi mën a def ba génn ci ak ngërëmal suñu boroom ak pay yu rëy a rëy rëy rëy yi nga xamee ne suñu boroom moom lañ ci denc moo tax sallallahu alayhi wa sallam da ca teg ne wa anna allaha jaalahu rahmatan lil muminin mu ne laysa min abdin yaqau taaun fa yamkusu fi baladi saabiran muhtasiban yaalamu annahu laa yusibuhu illa ma kataba allahu lah illa kutiba lahu mislu ajri shahid nee na amul benn jaam benn jaam yàlla boo xam ne mbas dina am cib dëkk a ah, mu fekk fa nga toog fa muñ di muñ ngir jëfe sa wax yonent ngir ragal a génn dem fu mu amul wàlla leen ka fa nga toog di muñ xam nga mitti na mbas am foo xamee ne yaa ngi ci seen biir ñu ne la toogal foofu muñ ngir nga bañ a lor keneen ndax diine ji kat laa darara wala diraar amul loru waaye amul lor keneen looloo tax diine ji am ci règle yi dafa wàccee juróomi mbir yoo xam ne dañ ko war a ottu muy diine bakkan alal euh, xel ak askan am na ñu si teg der kon yooyu ci diine yi yàlla ma sa wàcce yépp dafa digle ne nañ ko aar kon yoneen nee ne sallallahu alayhi képp ku dégg samay wax mbir moomu nekk cib dëkk nga téye sa bopp muñ te yàlla tax saabiran muhtasiban nga xam ne yaakaaroo ci kudul yàlla mu yool la ci loolu waaw ba noppi nag xam ya enlèvement annahu laa yusibuhu illa ma kataba allahu la mu xam ne amul dara dara dara lu ko mën a dal lu dul li yàlla dogal ci moom qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana wala déet huwa mawlana wala lay faletuka lmuminun amul dara lu ñuy dal lu dul lu yàlla dogaloon ci nun waxoon naa ko mooy sunu kilifa moom suñu borom subhaanahu wa taala moo nu méngoo waaw kon nag ci moom rek la jullit bu ne war a wéeru moom si suñu borom kon nag jullit bi nga xam ne jëfe na waxi yonentaam waxoon nañ ko fi mu ne mu muñ génnul fa mu nekk di ko yóbbu feneen xam ne lépp lu ko dal yàlla la aha nee kooku dey yàlla dina ko bindal lu mel ni yoolab ku sahit maanaam ku martiir loolu jaru ka kooku génnaale na si lu rëy bu ca deewee nag sama ah, sallallahu alayhi wa wax na ci xadis bu wér nee ne aha attaaunu nee ne shahaadatu kulli muslim waaw nee mbas daal nee ak martiir la ñeel jullit bu ne boo xamee ne muñ nga ci li wax xam ne lii yàlla moo la ko teg shahaadatun li kulli muslim nee ne ku dee ci mbas ànd muñ ànd ak yaakaar yool ba yàlla nee ne kooku da nga shahid maanaam yoolab martir atteb ku martir lañ lay jox ci diine ji kon nag mbokki jullit ñi jullit bi daal war na góorgóorlu balaa yi yàlla di wàccee subhaanahu wa taala ñaar yooyu bu ci ne mu gañe ka bu neexe mu gañe bu naqaree mu gañe sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ajabaan li amril mu'min mu ne inna amrahu kullahu xayr وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له mais man day yéemu naa ci mbiram jullit nee na mbiram daal lépp yiw la mu ne jullit bi ñaari bés yi yàlla di wàccee ci kaw suuf ñaari balaa yi muy bu neex ak bu naqari mu ne jullit bi daal bu ci nekk da ciy gañe nee na bu neexee day sant yàlla muy lu gën ci mom la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma doli len mu ne bu naqaree mu muñ muy lu gën ci mom kon suñu borom subhanahu wa taala de gëngal li bi sallallahu alayhi wasallam wax innama yuwaffa sabirun mom la sallallahu subhanahu wa taala wax innama sabiruna innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri xisaab innama yuwaffa sabirun ajrahum bi gayri xisaab nee ne muñkat yi dinaa leen fay senab yol te duma ko régler duma ko wàñña kon lolu jarnaka mu waxati mom sallallahu alayhi wa sallam maa yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta shawkati yusaakuha illa kaffara allah biha min khatiyat nene min khatayahu mu daldi di wax ne jullit daal amul dara dara dara lu koy dal min nasabin si xeeti coona comme ni mu dale jullit ñi fi walla wasabin du caagi nag xeeti feebar wala hammin du caagi nag xeeti njàqare yoo xam ne mu ngi koy ragal ëllëg wala xasanin du caagi nag njàqare lu wàcc woon ci moom te mu nekkat ba léegi ci moom wala azan du caagi lor guy dal ci moom jóge ci ay mbokkam ci seen làmmañ walla ci seen jëf wala xammin du caaginug jaaxle wala boog tiis wala boog njàqare goo xam ne day gën di xóot sax taxoo ak moom mu ne lu dul ne suñu boroom subhaanahu wa taala sippil ay bakkaaram kon loolu jar na ko wala jaru ko lii lañu war a wax jullit ñi tey jii pour ñu génn ci mbus mbir bi ñu génn si am luñ ca gañe mooy ñu delloo ko suñu boroom te jéem fexe Lalu ci yàlla dige ci ab yol ay ak ak ak ndàmpaay yooyu jullit bi man ko gañe ci musiba wa illa dina perte ñaari yoon bu kuci nangoo déglu ku ciy génne yàlla maa ngi leen koy waxaat dañu moytu di ŋàñña feebar bi le bari na ku kay def waxun ma feebar bii waxun ma corona waxun ma li ku nekkaa ngi koy def ci jullit ñi loolu nanu ko moytu ab jullit du def noonu ab jullit du wax ndax li soldari suma borom la moo koy yobal ci ñuko ko wama ya'lamu junud rabbika illa hu bokk na ci yi nga xamne ne kesse du ko gis da sama borom ba magal na ay mbinde lépp lu ñu gis ak lépp lo xamne ne ñu ka gis fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun laa tubsiruun dara ci moom ma ngi gëñ ci li ngeen a gis mu feñ ak li ngeen mënul la gis muy batin di khaybu faddu ak li nga xam ne sax seeni bët mën naa ubbeeku te du ngeen ko gis tamu ngi fi ak yéen bokk na ci lii sama borom moo xarala lu tuuti di mbindeef mu tuuti tey gis nañu li muy def ci àddina te mën a tukkal àddina itam bu sooboon sama borom bu dul woon wa yaafu an kasiir kon du fi bàyyi kenn ñëpp lay yóbbu kon feebar bi ñëpp lay dal yóbbu leen comme dalul ñëpp yóbbu leen mooy ne yaafu an kasiir jamoo taxaw jéggale na lu bari bàyyi na ci lu bari kon nag ah bu ñu ŋàññe bi si xadisu jaabir ibnu abdillahi dafa wax ne daxala rasulillah rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ala ummi saib aw ummi almusayib fa qaala laha ya umma saib aw umma almusayib ما لك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال صلى الله عليه وسلم لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد jaabir neene ne sallallahu alaihi wasallam dafa am bés muy ñëw di nemme ko soxna suñu wax ummu saib ba bok umul musayib mu ne ko yow ummu saib wala bok umul musayib lan mo la dal se yaram wi yep anda di lox di pat pati mu ne ko xanaa sibbër bi bo xun ma sibbër bi manam di di ka mooylu la barakallahu fiya ye dégg nga ngeen ku nek ci nun ne déglu lolu muy sibbo xunu sibbër bi la barakallahu fiha lolu la ci jublu yàlla bu ko yàlla barkel lolou la ci djublu yone nek ko déet déet bul ngagnati febar mu nek bu ko ngagnati mu nek xana xamone febar yi di wàcc ci yéen djulit ñi lay wax waaw ha bu wacce da fay dindi lépp lu ay jawteef da kay dindil djulit bi waaw comme ni nga xamé ne tay bo jëlone wañ guñuy wax or wala euh argent wala benen wañ dugal ko ci sawara wi kiy tëgg wañ gi di ëf sawara yu muy tàkk di dindi li si nekkoon lépp ba boo ko génnee mu doon or bu set wicc wicc wicc te bala nga ca laa dugal mu nga tax yoo xam ne sawara doo nga ma ko bu ko dugalee ci sawara wi sawara di ko lakka di ko lakka di ko lakka ba mu set bu ñu ko fompee mu set wicc jar lu ne mu ne yii wàcc ci yéen nag bu leen ko ŋàñña ndax loolu lay def ci yéen lu mu mitti mitti mitti bu ngeen cey génn da ngeen di mel ni or bu ñu génn ci cib wala wañ goog bu mu mën a doon ñu dugal ko cib dindi ya ca taxoon te manu la dañ noonu la feebar bi di def loolu subhanahu wa taala ci beneen xadis mu wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu azza wa jal yasub yu'zinu ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahr bi yadil amr uqallibu leyla wa nahaar mu ne doom aadama day mu ngi may lor waa lu tax mu di la royaa rabbal alamin mu ne mu ngi ŋàññe jamono bi te man maay jamono lépp ci sama loxo la ne maay ëlbati guddeeg bëccëg xew-xew ya cay am yépp maa ko fa wàcce kon ku mel na ni ku sa ŋàññe jamono ngir jafe-jafe ya ca ne ngir balaa yafane ngir mbas yafane fa ne mu ne mel na ni man ngay ŋàñña xanaa kon dinañ noppi deeti nañ ŋàñña feebar bi déedéet nanu wax rek alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ñooñu ñooy ñi gindeeku waaye feebar bi di ko sibbo xunu ah loolu mel na ni yaa ngi lor suñu borom subhanahu wa taala kon mbokki julit yi loolu mooy li nu war a wax ak julit bi kazalika naka noonu ngelaw lii ngay gis am na bés am ku ka ŋàñña ngelaw li mel ni kuy yëkki ay yéreem mu ŋàñña ngelaw li sallallahu alayhi wa sallam nekk déet laa tasubbu riix waaw raaytum ma takrahuun فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به mu ne mu nekk bul ŋàññati ngelaw lii ku si gis loo loo sib loo bëggul ku si gis loo bëggul mu di la lor nee ne ci ngelaw na nga yëkki say loxo nga ne yow yàlla maa ngi lay ñaan xayra haasihi riix yiw wi ànd ak ngelaw lii wax xayri maa fiye ak la ne ca biir yiwu ngelaw lii ak li mu àndal wa xayri maa umirat bihi looloo lay wane yàlla mooy digal yooyu yiwu la yàlla digal ngelaw woowa la ca yiw maa ngi muslu ci ayu ngelaw lii ak ngay ayu li ci biir ak ayu li ñu ko digal kon de mbokki jullit ñi li ñu war a wax ak sunu bopp wax ko ak jullit ñi mooy loolu waxtu wi jot na te jamono neexul waaye dénkaane la boo xam ne amaa li ñuy wax ci wàllu moytunteeg yooyu waxtu wi du ko mën a maye bu baax waaye nag li ma ëppaloon solo mooy njuumtey jullit ñi ci jamono yiñ tollu niru na lool njuumtey ñi gëmul yàlla jàmbat li bari na ŋàññ feebar bi bari na delloo mbir yi keneen ku dul yàlla bari na léeg-léeg ñi bëggal seeni sëriñ ah yëgg seeni daraja ñu leen siy dugal di ci bokkaale perte ñaari yoon koo bokkaaleeg yàlla ndéem jaamab yàlla la bu baax ëllëg dina dugg àjjana yow ga dugal sawara doontab yonenta la doonta malaaka la nañu xool li nuy wax ak li nuy def kon nag nit ñi nañu dellu seen baroom te mbir mu mel nii nit ñi ñett lañ ci séddale ko kii nga xam ne day wàkkiilu ci yàlla di sabablu ak ki nga xam ne day wàkkiilu ci yàlla waaye du sabablu ak ki nga xam ne sababluwul wàkkiiluwul ci yàlla ki sababluwul wàkkiiluwul ci yàlla kooku mu ngi ci njuumte gu rëy wàkkiilu ci yàlla mooy nga wéer yàlla mbir yi delloo ko mbir yi waaye sabablu gi mooy yii ñu lay wax nga def ka jéego yi nga war a topp nga def ka nga def ka médecin yi di ko wax te médecin yi diine ji moo leen si jëkk moo leen ci jiitu fuuf sallallahu alayhi wa bu dul woon a guddal li mu ci wax ci hadis du jéex du xaaj kon ñaari jéego yëpp jaa jéegoy sharia la muy jéegoy zaahir yi ak jéego bi ñu jëm muy xeeti ñaan ak tuub kon nag jaam bi nga xamee ne sabab luwul maanaam li ñu koy wax defu ci dara ba noppi wàkkiluwul ci yàlla paalewul yooyu kooku bu moytuwul pertement bu kër bu rëy dina ko ci topp am na ñoo xam ne sax dañu la naan feebar bi amul subhaanallahi feebar ba amul kon kooka waxul waxi wàkkilu ci yàlla waxul waxi sabablu ak ki nga xam ne moom mu ngi sabablu rek yi ñu koy wax yépp mu ngi koy def waaye taxul mu ngi wàkkilu ci yàlla moom daal defe na ne daal ah jàngoro ji daal moom ala kulli xaal dafa mel ni ku amam xel kuy topp niki fu mu jëm yow bi nga jëlee say matuwaay yépp ba pare wakiilul ci sa borom nag waaye lu yëngatu nga defe ne mooma boo laalee lool laal rek defe ne mu nga ca bëgg a dof loolu nag nañ ko moytu da ngay wàkkilu ci yàlla nag jëlal sa masque du wax nañ la defal espace yi wax nañ la ko jëlal yi ngay def ay hygiène du wax nañ la ko def nga lépp li la sab yonent wax def nga lépp alaay Mamadu lu si des wàkkilul ci yàlla waaye nag lu yëngatu nga ne feebar baa nga ca ñeme walaal mbuba sax loolu du noonu ka ca gën aw demin nag mooy ki nga xam ne day jël sabab yi ka yoneen sallallahu alayhi wa sallam wax ba noppi nag ëlbëtëku jël sabab yi nga xamee ne moom la médecin yi di wax te diine ji jiitu leen si moo tax ñaar yëpp dañu naan sharia moo ko indi sallallahu alayhi wa sallam déggoon nga ko waxoon nañ ko fi iza sami'tum bi taa'una bi ardin fala tadxuluha wa ida waqaa bi ardin wa antum fiha fala taxruju minha bu ngeen ko déggee ci am réew ngeen nekk ca biir réew ma bu leen fa génn ngir bañ koo yóbbu feneen lor keneen réew ma nga nekk bu fa nekkul bul dem ca réew ma mu am ngir bañ a exposer sa bopp ci foo xam ne feebar ba mu loolu dégg nañ ko ba tàyyi kon loolu jéego bu leer la amaa set ci wàllu diine ku ne xam na lan la ci diine wax diine lislaam léppam set la waaw ndax cet moom daanaka mooy gaal génn wàllu dine booy seet léppam cet mu ngi ci ak yi si des yépp li ñuy tere yépp na nga jël matuwaay yi ci mbooloo yi espace yeeg yépp ni ñu ko waxee maanaam sabab yépp ki koy jël ba noppi bu ko jëlee na wàkkiilu ci baroomam subhaanahu wa taala na wàkkiilu ci baroomam ta moytu te xam ne lu ko ci dalit yàlla la kazalika naka noonu ki nga xam ne feebar na ci ba noppi moom itam na xam ne lii ka dal yàlla la mu muñ te dem faju te moytu di dem ci ñeneen ñu feebarul matuwaay yooyu yëpp nag suñu sang Seydina Isaa Ruuhu Laay alayhi salaatu wasalaam bi muy fi nekkee def na ko fële waaw toppa naka jéego ak jéego ñamu dal mu ber leen ñi mu daloon ba ñu wér mu ber leen ñi mu dalul mu ber kon loolu moo lay wan di ba ñu takkal ka ca médaille ci épidémie kon ak yeneen ak yeneen ci tënk lolou mo lay wone diine ji dafa bëgg kuy sabablu ndax ñaari xam-xam yëpp naka seyna babakar mu tedd ma daan waxe di leen dem ci tubaab yi li ñu yor yàlla mo leen ko jox non la ko daan waxee boole leen ci tubaab yi li ñu yor yàlla mo leen ko jox kon xam-xam ba ca médecin ya lolou yàlla moko wacce wàccee doomu andi fi xam-xam abadan kenn judduwaale ko wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a yàlla moo leen génn seen biiri waajur kenn andiwaal fi xam-xam والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم الأمة والأبصار ولا فدة لعلكم تشكرون كن مدفل لين أبدك أكب جيس أك خل بوي تكي كن نك لولو يالا بوكي جولي ني أه وقتو يو مايوكا نانو آر سنو بكن آر بكن كنين سبب لسنو كارانجي سبب لسنو كارانجي ba noppi nak ñu wakilu ci yalla moy tu tiit mi ak di tiital dom aadama yi loolu musiba mu reey la kon nak sabab bi ci dess dalay ci lañuy la ñuy tëje mooy tuub jëm ci yàlla ndax kat Abbas kérok bi nga xamé ne Omar digël na mu def baaw naan li ñuy toy ba jullik jullik baaw naan waxin la rek waye nak istisqa la tudd jullik nandalu ba muy yëkki loxaya day dafa wax ne allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi zan wala yuksaf illa bi taw mu ne amul benn bala buy wàcc lu dul bàkkaar waaye doo ko fi jële lu dul tuub nañu tuub jëm si sunu boroom wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun nañu ñaan yàlla sunu boroom wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ci gàttal xeeti ñaan yi bari na waaye mbas mu mel ni sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa daan na ci muslu di ñaan ak bépp feebar boo xamee ne feebar buy faagaagal la دانا وخني اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام يا يالا ماغي مسلو تي ياو تي رام تي غانا واو تي اك ندوف تي رام تي اك ندوف تي غانا اك سيء الاسقام مانام بيب فيبر بو خاميني داي فاغاغال كون لولو اك نيانام لا دانا نياني جاما واو لا تتمنوا لقاء العدو wasalullah alaafiya bu leen mébét mukk dajeeg noon bi te ngeen di ñaan yàlla jàmm daan naka ñaan ci kanamam ginnaawam kawam suufam ndejoor ak jàmmañ xeeti ñaan yi bari na yonent yi ku si masaa jàq da ngay ñaan bal nit ñi ci seen boppa si fitra li leen yàlla bindaale ci ngëm bu ñu sa mën toll yéefar bi ak jullit bi moo ci yem wa isa massa naasa durun daaw rabbahum munibina ilayhi nit ñi bu leen ak lor dabee dañuy ñaan seen boroom dellu ci moom tey saraxe itam ndax sanga bu tedd bi seydina limaam alayhi salaatu wasalaam dégg ngeen ci xutba yi waxoon na ko ak tey nee na na ngeen farlu ci sarax te yàlla tax ndax sarax kat dina dindi balaa te dina fagal nit ki itam nërmeelu win wu ñaaw kazalika naka noonu yu mel noonu xeeti delluwaat ci yàlla yooyu nañu ko farataal tey jéggalu sunu boroom te faral di wax la nga xamee ne boroom natt bu mag ba mu yont yàlla yunus mu nga ca moom la doon wax sa biirab jën ba ba suñu ba dal di koy xettali subhanaka laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin kon delloo mbir yi yàlla ah sàbbaaka yonnente yi dañu daan ñaan ci xat-xat kon nañuy ñaan ci xat-xat kaanu yusaariuuna fi lxayrat wa yaduunana ragaban wa rahaba wa kaanu lana xaasiin dañu daan jëkkanto ci lu baax di ñu ñaan bu neexee ak bu naqaree ci tiit ak ci jàmm dañ daan ñaan kon nañu ñaan yàlla tey ñaan yàlla tegg fi balaa bi teggul nu ko sunum réew tegg ko ci àddina bépp yal nu yàlla jàmmal jàmmal ñépp yal na nu yàlla jéggal yal na sama borom ba tabaraka wa taala jëllale li nga xam ne mooy sunuy bàkkaar ñu ngi koy ñaan di torox lu jëm ci moom mu teggal nu balaa bi te bañ ñoo topp ci sunu matadi ak sunuy bàkkaar ak sunuy rëcc ak sunuy làmmeñ yi nga xam ne bés bu jot lu yàlla sip bañ koo dégg mu ngi ciy génn yal na yàlla jéggal nu te bañ ñoo toppe itam li way desey xel yi di def yàlla sama borom ba tuur fi نيرو خيول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار barke sidna li mo tedd ma alayhi salatu wassalam yalla na sama borom ba bayil nu fi sunu sanga bi may ko wër ak jamm ak xewal ak njabot gi ak julli bayyi fi kilifa yi diine defal nu jamm def ko ci adina bépp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 ñuy dox ba ren ji ba dugg ci weeru kooru màgg wi mu ñuy gunge ba ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm tey yàlla moom amel nañ ko cant kon nu ngi koy sant bu baax nu ngi nag ndokkeel addina bi yëpp julliti addina yëpp di ndokkeel julliti Sénégal yëpp di ndokkeel it kilifa diine yi nga xam te ni ñoo nekk ci réew mi di ndokkeel it ahlu bayt rasul Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam bi nga xam te ne tey comme ni ngeen ko gisee tay ji julli nañu fii ci yoof e eh, julli gi nag gis ngeen ni ñu ko doxalee defe naa ni lu am solo la ndax ku nekk xam na li nga xam ni moo xew ci jamono moo tax bi ñu waxtaanee ba war a julli ñu jël disposition yi nga xam te ni yëpp mënoon nañ ko jël pour que julli gi jaar fi mu war a jaar ba tey ji mu mel nii ni war mel loolu nag dañ koy sant yàlla ndax Eh, bi lii xewee bi ñu ko ñu sëriñ bi joxee ndigal ñu saytu ko dox ko ba am ci ndigal ci laa daje ak njaboot gi yëpp ñu ànd ko di ko organiser ba ñu egsi fii tey jii. Eh, dina gërëm spécialement xale yi nga xam te ni que ne ñoo ŋànk liggéey bi muy vision 129 ay la yéen war nañ leen a gërëm sant leen ñaanal leen ndax lii lépp soo gis su yembee tey jii. yena yalla ñom ñoko taxaw fan yeb nu ngi daje ak ñom di waxtaan ak ñom ba ñu mën ko organiser organisation bu mucc ayib kon loolu dafa am solo loolu war nañ ko ci suñu bu baax la ci nak gis ngeen ko sëriñ bi wax nako sank e lepp lu am rek yalla la kon nag yàlla moomu dañu jëlaat yeb dala ko ci mom diko ñaan yalla mi nga xam te ni que ni moom moo koy tek doomu adama yi ñu ñaan yalla moomu mu teggi fébar bobu ba nit delu wat ci seen ité loolu la ñaan et di ñaan aussi njabot gi ñu respecter mesures sanitaires nga xam te que autorité jox nañ ko loolu buñu ko défé yalla mënu ñëw muccal ci bala bi nga xam te ne yàlla moo ko wàcce loolu que li ëppoon solo la ci waxtaan bi ñu ngi gërëm nak euh, bi bu baax ndax taxwayam rafet na at mu jot rek suñu ko gisé déglu ko fay defaat leneen ci suñu ay xol kon loolu dafa am solo bu baax a baax a baax kon ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla mi nga xamante ni que ne mooy jox kantan ak wér yàlla ko ci jox ba mu doyal sëkk ba mu ne jiite at mu jot ci fii ci waxtu bi. tey ci julli bi gis nañ ne distanciation physique bi respecté nañ ko euh, ak it li nga xam ne moo di euh, takk masque yi tey est-ce que loo leen digloo leen la taalibe yi bi ñuy ñëw. waaw loolu loolu wax naa leen sànq que ni bi ñu jotee ndigal pour organiser julli gi ak vision 129 ci la ñu jël mesures yooyu yëpp xale yi ñetti fan a ngi nii guddi ak bëccëg ñu ngi liggéey ci lool su ngeen gisee organisation bi ni mu mel ak drapeau yi gis ngeen fi ñu samp fu nekk ñu samp fa drapeau dañu bëggoon kenn ku nekk soo ñëwee xam nga fu nga war a taxaw kon li ñu waroon a respecté yëpp respecté nañ ko mesures sanitaires yëpp respecté nañ ko ndax gis ngeen ku ñëw buy ñëw masque lay takk kuy ñëw amoon na sax ay thermoflash yi nga xam ne soo ñëwee ñu teg la ko nga xamante ne que amuloo benn feebar loolu lépp dafa bokkoon ci organisation ci ci ci paquet bi nga xamante ni moom la ñu tegoon pour ku julli gi mën a jaar fi mu war a jaar bu egsi waaw su ngeen gisee yéen sax xaj na amu leen woon information bi que ni dinañu julli c'est parce que dañu bañoon mu am rëcc parce que suñu waxoon ni dañuy julli kon fii kenn du fi xaj kon mesure yi ñu bëggoon pour que teg ko kon duñ ko war a mën a teg moo tax ñu bàyyi woon doon defuñu benn communiqué mais gis ngeen defuñu communiqué waaye gis ngeen jàmmalaay ko fees na. yalla dimbali nañ nak ba continuer nañu ñoo ñëpp ku ci nek fa nga waran taxaw taxaw nga fa la nga waroon def def nga kon lolu sante yalla la nun du nek risque ci nun parce que xamna li ñi def damay wax ni que ni nun dañu am xalé yo xamanteni ni que ni ci goor ak jigen mak ak ndaw lu ci organisation ci diine ji ñoko yar moy vision 129 kon ñooñu dañu leen di dañu leen di gërëm spécialement ndax li lepp su mën a yematee ñooma tax motax amuñ ci won ben problème parce que xamoon nañ que ni risque zéro nak amul fenn waaye nag def nañ li nga xamante ni que ni def nañ ko war nañ ko def ba nga xamante ni que ni tey jii am na yaakaar ni que ni laayeen yëpp seen xol sedd na loolu yi dafay jox xalaat ñeneen ñi nga xamante ni xaj a julli ñu woon parce que mën na ne suñu demee bu ubbi ay école suñu demee bu ubbi ay marché kon war nañoo mën a ubbi ay jàkk war nañoo ubbi ay ay ay ay bu bërëbu euh, jullikaay kon nag na ñëpp jël seen disposition ku bëgg a julli mën nga dem julli waaye nag lañ la wax ci ci mesure na nga jël nga xam te ni que ni ñëpp yàlla dinañu mën a sàmm ba ñu gën a ci mbas mi. yàlla daal moom mooy def lu ko neex yàlla mooy jiwale ay nit ñu ànd def lenn yàlla it mooy taxale ay nit ñuy def leneen waaye lépp rek dafa bokk ci diina ndax kenn ku ci nekk fa nga teg la nga teg rek ci lislaam la. ndax ñi nga xam te ne dañoo woor ñaar fukki fan ak juróom juróom juróom-ñett ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba ñu wari ki nga xam ne que ne am na sikki sàkk moom it ci li nga xamante ne que ne est-ce que weeri feeñoo wala feeñoo su matalee fanweer it loolu it l'islam l'islam nangu na ko kon nag def ci la ak sotti ci rek lépp rek lislaam la nañ ko rek ci cadre l'islam waaye nag su waxtaan mënoon a am ci kaw kilifa diine yi njaboot gi daje waxtaan bu teg gëm naa ni kilifa diine yi tey kenn ku ci nekk soo yow waroon ku nga gën a wóolu bu ñu toogee loolu mën a am yaakaar ne dinañu gën loo xamante ne que ne njaboot gi yëpp nañ ci